nekk ak version ni ku nekk aussi tamit ak lam lay wax waaye li gën a am solo ci doomu adama mooy ngay wax dëgg am na solo ngay wax loo xam ne ku la gis respecté am na solo wala nga jàkkaarloog doomu aadama ngay diis moom yàlla dogal tey lu bari mën a daan dimbali boo gisaatee xool ko am na solo man géej waay laa am fii laa juddoo fii laa yaroo fii kon dara jaaxal ma ci géejuwaay ci profitoir dem di nuyu suma papa Diaw ak Daadu Seck ak Andaw bu baax a baax euh, ma maa ngi nuyu passage ak Andaw Ndiaye ak Pape Mamadou Fall ak Thierry ngeen baal ma ci wax jooju ah waaw léegi man géejuwaay laa juddoo ñun ñëpp ñoo bokk géejuwaay mais aussi tamit li am solo mooy li ma wax rek gis nit sigg man mosuma toog téléphone kenn naan dama koy wo ci Open Presse pour mu ñëw wala mu ñëw yàlla xam na loolu yàlla rek moo tax may wax te li muy wax nii ak fu ñu mën a nekk ci àdduna mën naa taxawaat wax mbër yi ngay gis ñëpp ñu ràññoo ci compresse kenn kenn ci ñoom mosuma ko woo mu naan ko kaay ci compresse wala nangam pour man géejawaay bu xewlee géejawaay moo xewle da nga war a bàyyi sa ñëw taxawu géejawaay jàppale géejawaay gis nga bëgg sa gox dafa bokk ci jaamu yàlla Aziz Ndiaye tey di suma papa di suma xarit te ba mu méttee pourtant ñu bëri dañoo dañoo bàyyi moom moomu woo ñëw ak Baye Ndiaye waxtaan ak man jàppale ma ci ay moyen boppam téye ma ci ay moyen boppam est ce que kooku xaar na ma ko woo xaaru ma ko ci woo bu ñun géejuwaay lu muy rëy rëy rëy rëy ku ci mel ne Aziz Ndiaye rek la am ak Alioune Sall wax jee fi nekk nii rek ay autorité d' accord gis nga nit ndimbal lañ ne la cay fekk loxoy borom. dangay liggéey lu tax ñu lay jàppale da ngay liggéey lu tax ñu lay téye da ngay liggéey ñu lay fonk man de ba may ndoog a débuté ci ci école bi amuñu jàppale ni nga gis école bi ñu fi nekk entraînement lekk ñu tëdd ba yàlla def li muy def kon nag ñu liggéey nañ ñu tax nit ñi di ñu bàyyi xel liggéey nañ ñu tax autorités yi di ñu jàppale liggéey nañu tax ñu jàppale Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 nekku fi rek kon mbër mais relation ak nit ki relation la ak nit ki li ma sekk ak Aziz mbëri bëri sekkuñu ko géejawaay li may demalante ak Aziz mbëri bëri demalante ko Aziz li may jàppee bàyyi di waxtaan moom di kaf di ree mbëri bëri bokku ci relation nit bu ci gis rek ne diw diw rek lay jàppale loolu amul. su ma la déggee mbirum mbirum siisu kon su ma la déggee dafa mel ni mbirum siis da cee am wala mbirum jalousie wala. waaw du ma du ma la déet. wala wala jàppale bi la Aziz di jàppale daf danga nga jàpp da leen a neexul wala lu kees la lu xew. waaw ñi ci bëri boo la déggee seen comportement wala ñuy wax loolu la ñuy wax. maanaam jàppale bi la Aziz di jàppale moo leen neex. jàppale xam nga noonu waaw parce que ñaan jàppale Aziz man wax naa leen ko keroog 2005 ba may doog a bëri moom mu njëkk a fayal salle de musculation billaahi wallaahi wa taalaahi yàlla rek moo tax may wax moom mu njëkk a fayal salle de musculation ba maa ngi entraîné Kassor bi nga xamante ne benn salle bu mag Yékini moo fa doon fa doon entraîné ak ñoom Yékini junior fa la ñu entraîné Aziz moom daan jox paas na ma entraîné ñëwal dem bu ma entraînement nag xam nga loolu yàgg na parce que 2005 ci laa doog a départ pour ba loolu xam nga lu yàgg la ci man may dem di ko seet Sandaga di dem El Malick boobu est-ce que ñoom xamoon nañu Aziz mu ngi El Malick wala nangam ak nangam Sandaga donc mu nekk suma suma lépp yàlla dogal na moom ma xam ne kii yéenewuma lu jàmm ma jox ko sama bopp na lépp lu may def du ma ci def dara te waxuma la tàgguma ko sama papa mi nga xam moom a jur bàyyi koog ma sama turandoo di baal baal la bàyyi koog moom parce que xam nañ njëriñ bi moom ci Alioune Sall aussi tamit noonu Talla Meng mi ma lay limal ak mbay Diop Talla Meng Modou Fall ñoom dañoo yàgg ci man ak Simon. parce que dañ desul keneen. ak kan Malick Modou Fall Talla Meng Simon Mbaye Diop Malick Gakou Malick Gakou dañ ko daan. lan bëgg a wax waaw. waaw non duma ci wax dara xëy na peut-être lees manque na jot amul jot moo tax ñëwul. man noonu laa ko mën a jàppee parce que tamit wax dëgg yàlla ñëw naa ci école bi gisuma ko ñëw naa ci école bi tamit fekkuma ko fi fekkuma fi lees fekkuma fi elton o dëgg yàlla ñi ma fi fekk nag mooy suma booy yi daan ànd ak ñoom de entraîner wax dëgg yàlla aussi tamit ñu taxawuma jàppale ma wan ne ma aussi tamit ñun ñu sa kanam ñu ngi sa ginnaaw waaw mais fekkuma ne fi nag xaw ma nag lan moo tax ñu. lu tax te lijjanti woo ko tamit daal. am na fi yoo yëf jàmbur du mu ci dugg parce que ànd seeg su may mag ay Aziz ay Baye xam nga ñu absenté jël ko pour man li ci des maa ko war a moote muy contact muy physique muy ñëw loolu ñeme naa ko xaaruma ci kenn ndax tey ku am nag sa kër bàyyi nga ko yow waaw waaw ku ci am nag sa kër bàyyi nga ko yow parce que sama turóon léegi nu bàyyi nga fenn bu gars yi di wax entraînement damay leen ku liggéey sa bopp ngay liggéeyal ku ci liggéeyul na ba sa morom raw la bu ko mere loolu mooy wax ji mais yàlla tamit mooy maye nañu nangu loolu te accepté ko. Lamine. waaw loolu man li ma koy laajal rek ku mel ni Lac de tamit ku ne xam na seen seen diggante moom gisuñu ko ci sa combat boobu ci open press yeeg yi kooku tamit est-ce que yéen a ngi déggante wala seen relation fu mu toll. wax dëgg yàlla déggante wu. yàgg Lac de Guiers 2. waaw déggante wu. loolu boo ko waxee du doy waar. non du doy waar man man nee naa la ba euh, Lamine lépp lu may wax yàlla rek moo tax may wax du ma nëbb du laax laaxal mais am naa sutura. mais déggante wuñu loolu moom lu am. lu dagg diggante bi. xamuma ko wax dëgg yàlla. Balla yàgg lakk ñaari mag nga ne xamal lu dagg seen diggante. waaw waaw xamuma xam nga nit tamit da ngay wax rek lu am. xam nga ko waaw ba ngeen waxoon fi wax boo xam ne naqari waa làmb yëpp ni yéen a yëngal làmb ji ba nit ñëpp di leen gàtt ah waaw <laughs> tey nga ne tunge wa waaw wax dëgg yàlla déggante wuñ rek yàlla rek moo tax may wax. am gaañoo ñëw naa wax dëgg yàlla jaale ko après. waaw boobu après tegaale na cay fan ñu déggante après déggante du waaw. mais tey man lamin pour ñu tëj loolu li ma koy wax mooy wala li may lay parce que tamit yow Balla Gaye 2 Lac de guy 2 Gouye Gui Less 2 Elton ak lu mën a xew Abdou juuf xam nga yéen. ak ñu mel ni que ñoom Lirou Diane seen grand ak ñoom Maguette Seck yéenay tey leader fii ci géejawaay ci wàllu làmb est-ce que jotul ngeen toog waxtaan bokk ndey bokk baay est-ce que ànd gënt baax ci yéen comme euh, pour ngeen noppal seen supporters yi wala. waa xam nga maa ngi profité sax di nuyu Liir Diane suma mag suma frère ñu nekk ni ku baax te ko ñaanal yàlla bant moom yàlla na ko muurloo fekkee ko ak soxnaam di nuyu Maguette Seck aussi en passage xam nga tey mooy li nga wax gis nga mag bu mel ni Liir Diane am na solo ci géejawaay même bu fekkee lu ñekka sa ko ñëw defar mais tamit bu ñu fàtte ni aussi nit ku nekk da nga am écurie nit ku nekk da nga am école man nee naa nee euh, li gën a am solo mooy man Balla Gaye 2 ñëpp laa yéene jàmm te jàmm mooy nit waaw jàmm mooy nit man de wax dëgg yàlla buñ tegoon kaamil ma waat tooñu kenn defuma kenn lu bon waxuma kenn lu ñaaw xëy na nag ba cet li ñu yaakaaroon waaw man nekk naa fi ay tolof kenn lijjantiwu ma yaa ngi dégg toog naa fi ñu daan ma ñaari yoon may dégg lu ne année balance trois ans muy cinq ans pourtant gisuma ci ci ñoom kenn gisuma ci ñoom kenn kenn kenn est-ce jàpp naa leen ko loolu man la concerné parce que ci man la nekk kenn woo ma ci téléphone kenn wax ma ci nangam kenn nangam comme bu yàlla dogalee yàlla dimbali ma indiwaat ma ku nekk di wax ci sànni sa grain de sel man ay ree sax la may jàpp. léegi mën nañoo jóge foofu yàlla na jàmm ñëw voilà.